Béthio santati naa ko cant goo xam ne lottu naa ci mën koo wax waaw jëf ji mu waxaalewu ma ko waaye maa ngi koy sant bu wér waaw fii fii mu mu génn ak man te teyit ma koo defal waaw saa su ne oto bu ma mës a jox zéro kilomètre la waaw maa ngi koy sant bu wér waaw tey ñaan mu yàgg jamono te boole ko bu wér waaw sant naa ko bu wér yàlla na ñibbisi ak jàmm ci ku wér waaw ñëw ci biir këram gii waaw ñu santati Serigne Saliou Mbacké waaw maa ngi seereel waa jamono waaw mbindeef ak kudul mbindeef maa ngi santaat Serigne alal du sant nga dëgg dëgg Serigne Touba te ku sant Serigne Touba sant nga yonent bi sant nga yàlla ndax loolee lépp duñu ay juug lenn képp la maa ngi koy sant bu wér Serigne Bethio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te sama cant gi nag bëgguma yem ci bëri wax di wax waaw damaa bëgg mu dimbalee ma ngor akuk taalibe ak ni ma ko war a toppee ma toppee ko ni te liggéeyal ko. loolu lay sàkku jëmm te mu yàgg fi jëmm ji ñu miin lool ba àdduna seeree ni Serigne Béthio amul benn lool Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg ngi leen di xaar ah, di wax ñoo ngi fii ci Madinatu Salaam sëriñ bi ku tedd gi Serigne Béthio jox ah, jëwri université Soxna Aïda Saliou Thioune moom jëmmam ji oto bu yees pex bii di Porsche Cayenne ngeen gis ko nii muy soog a yegg si si kër gi tey jeudi 11 avril 2019 en direct Madinatu Salaam kër Serigne Bacco waaw waaw waajal 17 avril waaw waaw waaw waaw. waaw ma ko ciy santaat bu oto bi. waaw sant naa bu wér. waaw maa ngi koy seere sëriñ nga ci lool lool lool. ni oto baa ngi nii baax na lool wax dëgg yàlla. ñu bëgg xam oto bi ban oto la ak. yan la Porsche Cayenne la mode sport. 6 mhm. waaw mu ngi noonu en daal moom. oto bu baax la moom te deux cent quatre-vingts à lay daw ñu ci bëgg lépp te am na confort bi am na lépp daal vraiment ñu ngi sant Cheikh Béthio daal bu baax waaw di sant euh, madame Thioune moom it bu baax a baax daal aa incha allah sëñ Saliou nga ne le moom it def ci lu rafet daal ah, incha allah sëñ Sall waaw ñun de am nañ santaat nañ bu baax ci waaw dem santaat santaat nañ bu baax a baax ci liggéey bii ñu liggéeyal sëriñ bi ci jëmmam ji mu jaare si ñun ñuy ay taalibeem di ay ay ndongo waaw tey sàkku ngërëmam saa su ne lii jógee États-Unis ñëw jaar suñu loxo ñu génnee ko indil ko ko ci këram gi di ci santaat bu wér a wér di ñaan Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yàgg fi lool waaw ñu ngi siy santaat bu wér waaw ñun de sàkkuñ leen lu dul doon taalibe doon sàkku ngërëmul sëriñ Béthio ngërëmul sëriñ Saliou te lii jubluwuñ ci lenn lu loolu moom ba ñuy pare suñ jàng moo ñu ñaanaloon nañu yàlla ngeen si dajeeg tawféex ak ndamu sëriñ Saliou te ñu ngi ko siy gis bu baax di ñaanal Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou mu yàgg di ñaanalaat soxna si moom it waaw lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne bi suñu borom jàppale ko si mu liggéey ko barkeb jërë ngeen jëf. jëf. ndeysaan. waaw wala interview interview. lamp yi waaw. taal na ko